asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet bi Senfootball TV nii naa leen bu baax a baax ziar leen di leen wax ne nga ànd ak seen xarit seen rakk seen mag euh, Mouhamed di kontaan si seen commentaire parce que commentaire xam nga lay jëriñ ku nekk mën si jëriñu quoi tey jii euh, partage lay doon donc dama leen siy remercier bu baax a parce que à chaque fois aussi tamit lu pertinent ngeen fay bind tey nag dañu ñëw wax si Boubacar Kamara bi nekk Olympique de Marseille ñuy wax ne Aliou Cissé ak suñu fédération sénégalaise de football mën nañ ko baar lan moo tax mën nañ ko moo ngi ñuy xamal ne Didier le 18 le war a woo convoqué léegi muy convoqué dina convoqué 33 jours surprise yi nag dañu wax Fofana Koundé bi nekk fële euh, Séville euh, waxaale Boubacar Kamara Boubacar Kamara tax tey temps yi mën nañu wax ne journaliste ñoo ngi koy commencé defal campagne Landreau defal naka campagne mooy ancien euh, gardien bu Nantes Paris Saint-Germain les consultants consultant au niveau de Canal Football moo ngi koy defal campagne de dafa war équipe de France Pierre Menès itam Canal Football Club bi nekk mooy moom tamit dafa wax ne jamono bi Boubacar Kamara dañ ko

donc loolu yëpp boo ko boolee moo tax jamono bi ñuy wax ne euh, dañ koy woo équipe de France maintenant suñu fédération sénégalaise de football est-ce que nous dese na leen benn carte bu ñu jouer man dama à chaque fois tant que joue gul match officiel tant que joue gul match officiel. Euh, dossier bi lu mën a nekk la pour équipe de France même si nag c'est très compliqué ndax jamono bi un jour comme nga am Soumaré nga am Soufiane Diop moo moo gën a gaaw nga am Camara parce que Soumaré il n'est pas tout à fait indiscutable au niveau de Lille ñu ngi teg foofu Seka Renato Sanchez André ñoo lañ fay teg parfois ñu boole ak Seka wala André mais c'est pas un titulaire indiscutable donc mën nga wax ak moom même si booy boobu noonu objectif am mooy musée des Jeux olympiques avec équipe de France beneen booy boo xamante ne bëgg naa ñu woo ko mooy euh, Ibrahima Diallo bi nekk fële euh, mooy rakki Abdoulaye Diallo mi nekk fële Southampton très bon milieu terrain récupérateur xale

compétition yu mag autant pour moi donc euh, loolu lañ ci mën a wax mais encore encore une fois euh, nekk na du dossier bu xamante ne bu ñu jàpp ko bu ko équipe de France sax suñu fédération sénégalaise de football na continuer liggéey damay rappeler un peu contact euh, bi contact bi football na équipe de France seulement bi et tout mais nekkul woon match officiel waa centre Afrique dem convaincre wax ak moom ba mu ñëw centre Afrique te centre Afrique amul benn joueur donc contact bi ah bu demee ba bàyyi équipe de France dem centre Afrique Boubacar Kamara tey jii même bu ñu ko woon équipe de France mu ay match amical bu fekkee possibilité am na gisul confiance bu xamante ne Didier Deschamps jox na ko suñu fédération sénégalaise de football war nañu ko mën utiliser andi ko du Sénégal donc suñu mbokk yi nag ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis bu Boubacar Camara ndax yéen am yaakaar ba tey mu ñëw équipe du Sénégal dem tamit suñu compte Instagram seen football TV officiel di abonné bu baax baax di abonné fii ci YouTube di cliquer ci boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen sur seen football